xamante ni moo di bilan bu jëm ci li nga xamante ni moo di yàqu-yàqu yi nga xamante ni secteur privé nemmeeku nañ ko bokk na ci ay Auchan ay banque ak Sonatel ak li nga xamante ni moom mooy chômage technique nga xamante ni daal ñenn ci ndaw yi nga xamante ni ñoo doon liggéeyee ci euh, Auchan euh, dem nañ ko lu toll ci junni ak ñetti téeméer yi nga xamante ni nag dinañ leen ñu euh, am nañ ay jafe-jafe lu jëm ci wàllum xëy gannaaw ba nga xamante ni yenn ci entreprise Auchan daf ñoo am jafe ci gannaaw bi nga xamante ni ndaw ñu ngi doon amal ay manifester ay ayca ñu daal di dem ci euh, euh, le soleil national. le soleil xëtu euh, national bi moom dafa xëy fësal ci xëtam bu njëkk ki nga xamante ni mooy di njiitu réew bu Sénégal gannaaw bi nga xamante ni nag lii di banque mondiale jox na ko lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay milliards yi nga xamante ni daal. fasale nañ ko nag àll gi di réew bu Sénégal ngir nag ñu wéyal li nga xamante ni jëm ci liggéey euh, koom-koom bi nga xamante ni nag ñu ngi koy nemmeeku ci réew bu Sénégal wante it fexe ba lépp lu jëm ci ay travaux ak yu ni mel ak taxawaay bi nga xamante ni njiitu réew bi am na ko mu gën ko jëmal ci réew bu Sénégal. ayca le soleil national. le soleil national ba tey ci moom la ñu desandi euh, ak li nga xamante moo jëm ci BRT bi bi nga xamante ni nag daal gis nañ ni ki euh, démb ñi nga xamante moo di jiitu jawrin bi ak ki nga xamante moo di jawrin bi ñu dénk biir mi ak ki jëm ci wàllum dem bekk dikk bi ñu ngi doon saytu yàqu-yàqu yi nga xamante ni nag xale yi yàqoon nañ ko lii di jëm ci chantier BRT bi mu mel ne nag même su fekkente ne am na ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni nemmeeku nañ ko euh, teewul ba tey lii di berte bi ñu ngi xaaral di mu daw ci euh, weerub euh, décembre bi ñu dëgmal. ayca les échos. les échos yéenekaay moom dafa ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di banque mondiale bi jox lu toll ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaar ci ay milliards yi nga xamante ni ay koppar la dénk ko réew al ko réew bu Sénégal loolu rek ngir mu mën a wéyal liggéey bu jëm ci li nga xamante ni moom moo di politique bi nga xamante ni daal njiitu réew bi mu ngi koy doxal fii ci réew bu Sénégal ci BRT boobu li nga xamante ni jàpp nañ ni daal dinañ ko mën a livrer fii ak euh, décembre laataa nag li nga xamante ni euh, kii di njiitu kii di jiitu jawrin bi amaloon ab dox euh, bi nga xamante ni daal mu ngi ko doon amal ay saytu lu jëm ci wàllu liggéey bi ni ki démb mu mel ne daal li nga xamante ni moom mooy jëm ci BRT boobule dana am taxawaay bi nga xamante ni nag daal dañ ko ci dénk police bi ngir nag mu gën a saytu lu jëm ci boobu boobule berte bi nga xamante ni war na daw Ah, euh, décembre. Vox Populi. Vox Populi c'est dafa xëy fësal de xëtam njëkk jëwriñ bi ñu denk biir réew mi de Antoine Diom. bi nga de je dinañ ubbi ay lanket lu jëm ci li nga nemmeeku nañu ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi circuler ni ki démb nag ba mu doon ànd ak kii di njiitu jawriñ bi di saytu lépp lu jëm ci yàqu-yàqu yi amoon ci wàllu BRT wi la ko xamle moom lee di njiitu jawriñ bi Antoine Félix Diome nee na daal ab lanket danañ ko ci tijji ngir nag xam ñan ñooy nervi yooyu le ba ñu mën leen a teg loxo gannaaw loolee ki nga xamante moom moo di xalifa Sall moom yëkkati na ay kàddu nag jox ko baaraam tuuma ñi nga xamante ni ñoom ñoo fare ci yeewi askan wi gannaaw bi nga xamante ni nag ñaawlu na bu baax a baax li nga xamante moo di communiqué bu yeewi askan wi génne amul consensus ci bir leader yi pare ci euh, bobule coalition. la dépêche. la dépêche moom dafa dellusiwaat ci li nga xamante moom moo jëm ci euh, secteur wu presse ginnaaw bi nga xamante ni nag gis nañu euh, lii di signaalu Walfadjri ñu teq ko ak jafe-jafe yi nga xamante ni daal yenn ci ay euh, way taskatu xibaar ñu ngi koy jànkuwanteel loola tax nag lii di CAP moom fas jël ab bi nga xam ne daf koy tuppee journée sans presse maanaam ab bëccëg bi nga xam ne daal duñ ci amal lenn lu jëm ci wàllum tasum xibaar loole rek ngir naqarlu jafe-jafe yi nga xamante ni ñii di taskatu xibaar yi ñu ngi koy jànkuwanteel bokk na ci tamit lu jëm ci coupure signal yàllu euh, ay ayca lii quotidien lii quotidien moom dafa xëy dikkaat ci jaloo euh, de sourds bi nga xam ne daal ñu ngi koy yebe nemmeeku ci réew yi askan wi mu mel ne yeew yi taxawu Sénégal fi mu toll ni daal euh, li nga xamante moom moo fa nekk li mel ne daal jafe-jafe lañ fa nemmeeku gannaaw bi nga xamante nag lii di waa yeewi askan wi génne nañ ab communiqué ni ci altine bi ñi nga xamante ñoom ñoo fare ci ndaw yi nga xamante ni ñoom ñoo di taxawu Sénégal nag indi ab réplique di ñaawlu bu baax a baax lu jëm ci communiqué boobu léegi nga xamante ni génne nañ ko te amul consensus ci leader yi mu mel ne daal diggante yi di waa yewi askan wi ak li nga xamante ni moom di euh, taxawu Sénégal jaaratuñu taal ci li nga xamante moom moo jëm ci boobule coalition. ay ca tàggat yaram ak stade yéenekaay stade yéenekaay moom dafa dellusiwaat ci armada bi nga xamante ni daal pare na ngir nag jàppaar jàkkaarloo ak geppaar yu euh, benn loole nag ni fukki fan ak juróom-ñett juróom-ñaar lay doon gannaaw bi nga xamante ni nag daal ñii di gaynde Sénégal ñu ngi woon ci biir réew mi di tàggatu mu mel ne nag fukki fan ak juróom lañu fas yéene jóge fii ngir duutali foofu lee ca Bénin mu mel ne nag kii di Ilimane Ndiaye Habib Diallo Jackson ñu ngi leen di xaar bu baax a baax mu nekk ay attaquant sénégalais yoo xamante ni seen taxawaay ak seen xarañte fës na bu baax a baax foofu lee ca biti réew. ay ca ñu dem ci record. record yéele kay moom dafa xëy fësal ci xëtam bu njëkk ki nga xamante moom moo di Alioune Cissé mi nga moom la ñu mooy tàggat gaynde yu Sénégal mu mel ne nag daal di mu fas ne teg ci euh, jongante boobule ñu ngi ciy xaarandi bu baax a baax li nga xamante ni moom moo di ak Axial ki nga xamante moo di Abdoulaye sekk ak ab ak Abib Abdou Diallo. gannaaw jafe-jafe yi nga xam ne nag nemmeeku nañ ko Kalidou Koulibaly mu ngi ko doon am uh, ci fin de saison bi ak club am boobulee di Chelsea mu mel ne nag daal mën nañu uh, bu njëkk. ñu ndax keppe ko Ibrahima ak Tribune ki nga xamante ni nekkoon na fi gaynde Sénégal moom la xëy fësal ci xëtam bu njëkk moom mi lee di Omar Daf bokkoon ci gaynde yu équipe nationale bu 2002 moom mi lee nag daal uh, jox nañ ko club boobu lee ñu duppee Amiens nekk foofu lee ci première division ca Italie ca ca France gannaaw bi nga xamante ni nag moom bi lee nekkoon na euh, tàggatkat li nga xamante moom moo di soso ci atuma 2011 euh, ba 2022 euh, noonee nag lañ ko joxee club bi nga xamante ni moom moo di Amiens nekk club bu fi nekk foofule ca deuxième division bu France mu fas yéene nag yor boobulee club diirub ñeenti at gannaaw bi nga xamante ni xaatim na nag ab contrat ni ki démb digganteem ak club boobulee di Amiens loolu moo ndarkape li nga xamante moom moo gënoon fa yéene Maman, il ngi lay bu les journaux et xëyee tey de léegi ñu